maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam man nag maa ngi tudd awaka jóge Cambérène xam ngeen ne ku jóge Cambérène ñëw fii te xam ne ñun tamit dañuy gàmmu am na lu ko waral ndax fii mu nekk nii lu mu guddi guddi damay dellu Yoff wante nag gàmmu bi dama ko tàmm ñëw ndax fii daal dara manqué wul ci Seynabou Ndiéguène te bu dafa nekk nit koo xam ne amul lu muy xewle loo xam ne nit ku xamanteex moom dina ko tànqamlu ndax dara ñoru ko lu dul bés bi te bésu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam foog naa ne ku nekk xam nga ne moom moo ñu ñor kuy jullit rek loolu moom moo la ñor te Seyna bu nekk nit ku baax ndax ku jóg mu jógle la kuy def mu def le la kon bu ayee bisam bi lu nit doon def di ko bàyyi ñëw fi tey jii nag ñun ñëpp kontaan nañu ndax ñëpp ñëw nañ fi kuy autorité ñëw nga fi kuy nit ku baax te xamante seyni bu rek teg nga fi tànk ku ñëwul tamit woote nga wax li la téye kon daal ñu ngi sant yàlla tey ñaan yàlla suñu borom bi yàlla na ñu may ñu koy teewee at bu ne di nuyu ñëpp ñëpp fi nekk doomu sax na yeex ñëpp ñu ngi fi jërë ngeen jëf. Ah, maa leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaay bi ma ñëw fii ci Thiès eh, jóge Dakar ñu fekk sama collègue parti sama mag. ñëw ànd ak sama délégation ñëw siyaare ko ci bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man la maam Xari Mbàkke député assemblée nationale. comme sama collège parti la ñuy seq lu baax bi ñu bokkee ci parti bi ñu ngi seq lu baax seq lu rafet wëlbatiku muy sama mag ci côté chef chef yi ah ñu mu mu di ma ji lu baax su ñëwee Tuubaa day ñëw sama kër wax dëgg yàlla di ma seet si di ma ñuy waxtaan ci yu bari ci suñu liggéey euh, réew a ah, ma ñëwoon tey nag mu dem def bis bii maam di maam daan ko def ma ñëw teewal teewase ko ci bisan bi ànd ak sama délégation ah euh, muy lu am solo bis bi bi ñu xëyee ba tey wax dëgg yàlla ñu ngi fi fekk ay nit ñu baax ñu ci qualité nit ñoo xam ne euh, ñu ngi liggéey ci réew mi a ah, di di di jëflanteeg moom lu baax mu xamanteeg ñëpp xamanteeg nit ñu baax ñëpp moo taxoon ñu ñëw bàyyi suñu yitte yëpp tey. dëgg la dëkk Sénégal yëpp ñu ngi gàmm waaye loo gis rek dafa am lu war moo tax nga di ko def comme nag ñun dañoo am suñu bis boo xam ne moom rek la ñu am bokkuñu koo kenn muy màggalu Touba su su su ñëwee mu bàyyi téem yëpp ñëw teewal ñu kon tam ñun suñu toogee ba gàmm gi mu koy def maam daan ko def dañu ñëw teewal ko dañ bàyyi suñu te yëpp ñëw teewal ko ñuy ànd nag ànd bu rafet te yàquñ ci dara bokk liggéey bi ci parti APR maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaar yàlla bis bi heure bu ko at bu mu ko defee rek mu gën koo man te yàlla boole ñu fi bàyyi ñu liggéey boole ñu ànd ñu ànd ak suñu président ànd ak moom liggéey ak moom ba 2019 ñu falaat ko président de la république ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ci fekk merci. Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jull ci Muhammad di sant yàlla sant suñu ñaari wayjur ah na ba nga gën nag suñu wóllare la ñu bokk yoonu yoonu tarixa Cheikh na Ahmed Tidiane. chaque année bu jot nag ñun dañuy bàyyi suñu yitte yëpp ñëw ànd ak moom ci bésam bi ndax bésam bii rek la am bésu maamam bii ñu koy gërëm nag di ko sant ci suba ba léegi ñu ngi fi ak moom man ak sama ay wóllëre chaque année fi lañ koy paase ñu koy ñaanal yàlla rek lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén lu ëpp loolu ci kàttanu suñu borom ci darajey Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba déwén nag jàmm ak salaam. man rahim euh, maa ngi sant sama mbokk yi fii ñëw jàppale ma ci bés bi muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi donc euh, yëf yi biñ ko sumbee ba léegi tar doorteel bourde bi ba léegi ñun ñi ngi cees suñu xarit yi suñu am ji jàmm yi ñëw fekk ñoo man jàppale ñu ci bés bi comme j'ai eu à le tout à l'heure donc lépp luy kilifa si parti bi depuis démb ñëw nañ fi si kër gu mag gi ñëw ziar si ndax ñun lu ñu politique politique nag am na ci yoo xam ne semaine yoo xam ne dañuy delluwaat si kër yi kër gu mag gi ndax am na ci loo xam ne euh, am loo xam ne ndombay baat la ba àdduna ji tukki du dañ ñun loolu la ñu dund loolu lañ surtout lu ci gën a yokk mooy bésu Seydina Mouhamed bi xam ne dañoo gimmi rek fekk euh, suñuy maamaati maam ji ko def ba bés bii ku ci euh, seq benn tànk ñëw fekk ñu rek lu rëy la si ñoom ndax man lu ma nit nit xam lu ma nit nit defal bu ñu ma mën a defal te woo ba ñëw sama safu maam bi rek dara safu ma ci ku ma fekk sama péncum maam mi laa xam ne sama nitu bopp la def leen sama xol donc may sant samay xaritu bopp ñoo xam ne ay doomu soxna ni man tey kër yëpp koo dem rek tey bés bii ñëpp a ngi koy màggal waane tamit dañoo euh, booba bu léegi bàyyi seen lépp tëj seen kër ñëw fekk ma ci kii sama wet mooy honorable député maam Khady Mbacké doon sama rak doon sama féete ci parti bi ñu wëlbatiku sànq aji maaw bu sa defam ay teranga yu ma yóbbul bu sëñ Modou bu sa jëng donc soxna Nabou Mbacké bu sëñ Abdou Fatah mi ngi fii woon soxna maali bu Mali Buntaxa démb euh, ak euh, Astu Mbacké mu soxna Bali tamit démb képp kuy sama am di jàmb rek fekk nga ma fi mu wëlbatiku fekk samay mbokk Cees yi am Amina Sarr Fatou Gueye moo xam ne bàyyiwuñu ma benn yoon ma wét saa ma sëmbee bés bi maa ngi ma ciy nekk sama xaritu yaay tànn màgget bee jóge ba dakaar ñëw si bés bii ñëw awaka nag duma ko gërëm ndax moom képp xam nañu kër Seydina Limaamu la dëkk te lu fi am doog nekk membre cabinet président mais lu ko am sama kër gi lu ma xewle day takk ndigam ñëw lépp organiser ma ko ba mu jak maam xarit délégation mu àndal si kontaan naa ci fii ñëpp tey euh, Benno Bokk Yaakaar présidente femme LD AFP PS kenn manqué wul góor yi tamit euh, maire dëkk yi yëpp ñëw nañu fekk si ma sama tub maam mi maa ngi leen di sant ji leen gërëm sama collègue PCA yi ministre yi ñëw nañ fi Ousmane Tanor ñëw na fi démb également donc képp kuy sunu am di jàmm ak sunu safoo rek ñëw fekk nañ si penc mi donc maa ngi leen di sant ji leen gërëm ji yeesal sama njébal si sëñ Mouhamadul Mounir xam ni mooy sama yaakaar tey mooy sama bunt ci kër Alaaji Axmat Njegen ji sama bunt ci kër Cheikh Omar Foutiyou ji sunu yaakaar tey ëllëg ma koy delloowaat di ko yeesalaat sama ziyaar sama papa di ko ne jox nañ ko sunu bopp àdduna ak alaxira si barke nabil Moustapha maa ngi sant ñëpp kuy axlu Alaaji Ahmed Baro képp kuy famille Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif si à travers le pays maa ngi leen di sant di leen gërëm